yes. <laughs> waxoon tuuti sa jaar jaar sànq ñu ngi dégg nga wax ne ni xam nga jaar nga rëbës ak affaire yooyu. waaw dugg naa kaso te xam naa ni rëbës mel. maag hmm? général la woon ne ci kër yi di ket. muy tar muy metti di nga dund ci pet. affaire bi nu mu fa demee noonu. waa gis nga affaire moom jaar jaaru live la rek. Hmm. parfois da ngay yaa ma gën a xam fële moom. xam nga nu mu fay demee maquette ba. 20h <laughs> 21h c'est le Talrec Show avec Talrec sur Vibe Radio. la nga pare jàng ma tàkk la ma dëgg di mu ñu gën a bëgg ni ndeke nit ñi wax yëpp dëgg la ndeke defaale woo ma ci ba yow mi bëgg loo ma ba yow mi gis loo ma ci xamna naa ne xool loo ma 102.3 yaa ngi ki love sa wér te man sama bàyyi ma wér yow sama xol sama xel yàqu ko est-ce que la ji est-ce na la ji jël sama temps sama liggéey yàqu ko est-ce que la ji est-ce na la ji li moo ñu sonal li rek moo ñu taxawee di jooy taxawee di jooy dama na xam fi mu ne ci xol bi ci xel mi wax ma fu mu ne ñu bàyyi seenu baax ndax ñu bàyyi seen ñu bàyyi seen school ndax lool nobu ñu kenn ñi dañu dul ñu sàgganu ñu daa fekk jigéen ñi farlu wul ñi pasar pasare seen bopp moo tax ko ci tàkk benn ndaw du ko toog 102.3 nobu ma kenn baal ma nopp sama bopp man bëggatuma kenn fag نوتوما كان فاك لا من بغتوما كان فاك لا من قصتوما كان فاك لا قلتوما كان فاك لا بيعمل نوال من كسلا مميلا نبري جانج متاكلا مدك دموني كان فاك لا نكني لني وحي بغلا نكتفارو

li may dund ay waay man fi ma jaar ku fa jaar takk baan fi ma jaar ku fa jaar naka suuf. 102.3 yaa damay job ni dof du ma tiit di xof ñi ne dama soof man 2012 laa gisoon sama père te 2012 laa gëj a gis samay rongo ñu mer man samay noonee samay sama kër ñi toogoon démb ñoo taxaw tey ji bëgg ma guerre yéen safaraata ngeen di jaamu yàlla seen xol yee gën a tilim sax seenu suufu dàll ah man gawma keneen ku dul sama bopp nga yor sa paanu day bëgg a lijjanti sama koob yeah bu dee sooyee tàggali di ma toog man dina rabba sa mère bàyyi bi sax di ma toog yeah ma dàq way Youssou may defar rappeur yi te ngeen a nangu may buur sinon ma dagg seen xuur yeah dugg naa kaso te xam naa ni rëbës mel maag général la woon ne ci kër yi di ket mu tax mu nekk di dund ci bet du kenn si yéen ku si jàppoon si ñun bu lépp sottee kenn si yéen bu mu jàpp si ñun yeah ose booy jàppoon ngeen si ba fu ma taxaw ñëpp di ma xoole messi ma jël ci foto yi ci ak kii wag fee ñi sànni ñi saaga ndey xamee wa kii kee xam naa maa leen gënal seen bopp lu ne ngeen dégg météo leen ngeen gën ma di ma topp yee li may dund ku ko waxoon meer bi mu ne noono yaay booy masa coono te jant fenk war a leeral sa life ñi di bëgg ñi di bañ ñi di fexel sa laay ñi nekk seeni papa yaay ñeewu ma leen ñi jàng am ba plus cinq yaay xoolu ma leen man li ma ñor yaay mooy yow takkal la seenu or tabaxal la ca kaw 102.3 metti woon na lool jàpp te wa di ko dund sama gaay dëkk du ween mën naa sama baay li may dund ay waay man fi ma jaar ku fa jaar fi ma jaar ku fa jaar ma man fi ma ku fa jaar tàkk fi ma ku fa jaar am na solo ah. yes. waxoon tuuti sa jaar jaar sànq ñu ngi dégg nga wax na ni xam nga jaar nga rëbës ak affaire yooyu. waaw dugg naa kasoo te xam naa ni rëbës mel. maag hmm? général la woon ne ci kër yi di ket. muy tar mu metti di nga dund ci pet. affaire bi nu mu fa demee noonu. waa gis nga affaire bi moom jaar jaaru live la rek. Hmm. parfois da ngay yaa ma gën a xam fële moom xam nga ne mu fay demee maquette ba. <laughs> mu fay demee gars yi nañuy jëkki gars yi wàcc sa kaw tëb sa kaw. <laughs> des fois nañ lay jaay loo xam ne. waaw loolu waaw loolu tamit dama gën a sensibiliser sama parce su ma ñëwee ba fii te waxuma ko hypocrite laay doon. <laughs> li may dund du ko nëbbu. damay gën a sensibiliser gars yi bu ñu nekkee maquette ñuy xool kool yi ñuy jënd kool yi ñuy bàyyi ah, yaa ma gën a xam de man mi dund naa ci ay waay <laughs> loo xam ne muy loolu quoi gars yi dañuy ñëw sëf la loo xam ne muy loolu am na benn waay bu tudd Soldier xam xam nga ko Soldier dafa yàgg nag peut-être peut-être sa jamono doo ko xam nga ay yu bëri ñu gars yu bëri ñu ngi ñu xam ne hmm. muy loolu ay bal perdu moo ni dal sama gars yu bëri ñu ngi foofu yaa ma gën a xam ay sigim gars yi gën a xam na gars yi wax si ñoom gars yi defuñu dara. waaw gars muy loolu. yaa ma gën a xam. sama sama sama waa ji laaj. gars yi nañuy ñëw police bi la woo. gars yi ni dóor sa kol après xam nga. man mii gars yi ma woo ba tas. damaa wuyu ba tas fanaan ba tas. mais liggéey bi moo ko laaj. waaw mais liggéey bi moo ko laaj mais gars tamit mais instant yi nañu xam nañu tamit <laughs> <laughs> job bi duñ ci ngaaga xam nañ li fa ni mu fa demee yëpp <laughs> ku la indi loo xam ne doy na la defal sa décharge wàcce la sa carte d'identité jox la sa lépp ñu sensibiliser gars yi parce que boobu rek la am <laughs> ñoom duñu footballeur duñu dara waaw léegi na nice léegi moom affaire moom nice parce ay venant rek la jaay yaa ma gën a xam waaw ñu bàyyi lépp

e kana du loxo nono kana du bay e kana du seral kana biir da koy nirool no kana du loxo eh kana du bay no kana du seral kana biir da koy nirool da waga man mi dama dof da ngeen réew man mi dama dof rab gaa seen subu kànja dama daa di leen kuddu jox ma fukki peel e moo tox e moo tuur e li may def ku mu neexul <laughs> e na suul kaala du selal kana biir da koy niral yaa sul bukki suli bukki àddina bi tukki ngeen xewi ni duggi ma solal ñu koket ñi génn ci ndoket son yi maa ngi paket ci yeneen di faset akat sukki man maa indi sukki fukki bukki guddi fukki bukki bëccëg eh wax la ñu toog fi bu xante taxul nga bokk album international te génnul sa canal 4 bu faas bëgguma boyu may disturb fuñ ma seen ñoom ñoo ngi tristesse lébu nda doo ko laaj am fit maa ngi sama gan équipe ti baa ñu biib bi ma leen di tik tik animateur yi ma doy man foog digital du ma fay man ñi di dëmm ñi di kay man soxla ma war maa ngi jéy man mais du ma daw booy dem ma xoole ci kaw baatu osé dina law da nga aate lay be sa mère yoole yoole de sa caay baay album bi daa law dafa cere baay la bëri bypass ñi di tiri boo ñaf ndeyam officiel bàyyi ni eh kaana du xees kaana du bàyyi eh du xalaat C'est le Talrec Show. Show. Sur Vibe Radio.